ma leen di nuyu yéen ñëpp ci turu président de la république Macky Sall di leen sant di leen gërëm di nuyu Serigne Xaban mi fi teewal njaboot Sëñ Tuubaa di nuyu jëwrin man nag day sama mag di sama xarit di sax sama nijaay loolu moo gën doon dëgg ndax bi léegi yàgg na mën naa wax ni dama xàmmele ko rek xam ko bi ñu yàlla boole yàgg na dinaa ñëwaat léegi ci histoire jumaa ji wane ni taxawaay bi mu ci am Sëriñ Muntaxa dénk ko ko fi ñu ci toll tey dëgg-dëgg man de bokk naa ci ñi mu bettu ma leen di jottali nuyoo président Macky Sall mag délégation bi mu leen di di leen baal àq di leen baalu àq di ziyaare sëriñ bi sëñ Muntaxa di ñaan sëriñ Muntaxa mu ñaanal ko ñaanal réew mi ñëwoon nañ fi daaw fekk liggéey bi desoon tuuti yàlla dimbali ñu liggéey bi noppi ci weer yi passé yàlla wàccee fi xéewal yu rëy fii ci barab bi ñu ne Sénégal yëpp daje fi xalifa bi ñëw fi ànd ak njaboot gi yëpp président ñëw fi ñu gis fi loo xam ni lu rafet la ci Sénégal mooy ñëpp ànd juboo doon benn moo tax bi ñuy ñëw président ne ñu bu ngeen demee ba ci barab ba santal leen ma sëriñ bi waaye ngeen santal ma taalib yi ndax buñ fa mënee ñëw nekk fa lépp doon jàmm taalibe yi ñoom ñoo ko doxalee noonu kon président leen di sant yéen ñëpp di ñaan sëriñ bi fi Sénégal àdduna toll fa tey senegal yitte woon a jàmm ndax li ñu wër am na lu ngeen fay gis am na lu ngeen fay dégg waaye ñaan ñi ñu fi baax ñi fi nekk ñaan yi nga xam ni Sëriñ Tuuba def na ko fii ci biir senegal def ko ci biir Afrique defal ko xeet bi yépp am nañu yaakaar ni yoon wi ñu teg buñ ko wàcculee senegal du tàggoog jàmm mukk président mi ngi ñaan Serigne Touba sëñ Muntaxa mu ñaanal Sénégal yëpp jàmm ñaanal Sénégal yëpp juboo ñaanal Sénégal yëpp xéewal ñaanal Sénégal la nga xam ni moom bëgg na ko liggéeyal Sénégal yàlla may ko mu mottali ko waaye ñun dañuy ñaan yéene bi mu am ci Sénégal yàlla may ko lu ëpp njortam moo tax bi may ñëw mi ne nañu ànd ak Alioune Ndoye di ministre boo xam ni tey la njëkk a génn biñ ko tabee ministre ak léegi yitte woon na ngeen xam ko ba ndax xamoon ngeen ko sax ndax mooy meeru plateau ngeen ñaanal ko ndax lañ ko dénk yàlla defal ko ci ndam ñu ànd ak gouverneur bu ndakaaru ñuy rafetlu liggéey bi nga xam ni ñu ngi koy liggéey ci barab bi ànd ak ay député ak i directeur ci chef de service mais histoire jàkk ji histoire bu yéeme la ndax bi ko mbàkki yu di toppatoo ci ndigalu sëriñ baara am na loo xam ne fekke dañ ko ci bi muy ut benn hectare yenn genn dem ba mu doon ñett dem ba mu doon juróom-benn mooy li nga xam ne tey mooy uuf jàkk moo tax bu ñuy wax tabax jàkk bi méritu mbàkk yi du ci tabax jàkk bi waaye suuf si nga xam ne dafa nekkoon fii képp ku juddoo ndakaaru màgg ci ñaar tali gis ni li wër suuf si yëpp tabax nañ ko li wër suuf si yëpp jënd nañ ko yàlla ci mbaaxam dencal suuf si Serigne Touba ba mbàkk yi mi nga xam ne dafa màggee fii ci ñaari tali màggee fii ci grande Dakar mën a dox loolu ci ndigalu sëriñ Baar ba yàlla def loolu sotti juróom-ñaari at lii nga xam ne taxaw na tey fii muy loo xam ni tiitaru képp kuy doom kuy jullit neew ma rek koo xam ni senegal la def waaye képp kuy jullit walla képp sax ku bëgg lu baax. boo gisee liggéey li ñu def fii ak li nekk ci biir war nga cee kontaan mais ku xam fi mbàkk yu jógee xam ni war naa mën a am lu ëpp loolu ci yoonu sëriñ Touba kon Mbàkke yu gàcce ngaalam président daa ngi leen di sant bu baax a baax mi ngi leen di gërëm bu baax a baax mi ngi sàkku ñaan ci guddi gii di sàkku ñaan ci njabootu Sëñ Touba. ndax lépp lu jóge ci sëñ Touba du yaakaar buñ ci am am nañ ci firnde yu leer lépp loo xam ne dafa génn ci sëñ Touba bu dogoo ci lenn amuñu sikki sàkk ni yow loolu muy dogu yàlla dina ko defal la kon yàlla nañu yàlla boole barke guddi gi yëpp taas ko ci biir senegal defal njabootu sëñ Touba yëpp jàmm bàyyi fi sëriñ Muntaxa